mbokki jullit yi ñuy déglu ak yi ñuy seetaan yëpp fu ñu mën nekk ñu ngi leen di nuyu nuyu boobu nag ñu koy def ci ndigalul sunu kilifa di jëwriñu kër Cheikh yu Mbacké di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ni ngeen ko xamee bis bi nga xam ne moo moom lañu génn mu nekk juróomi fan ci weeru koor muy bis bi nga xam ne moom mooy bis bi nga xam ne ci la sunu cheikh sunu sang ba cheikh son yu Mbàkke feeñeen jamono te sëriñ bi amoon ndigal ci waajuram di sëriñam cheikh Saliou Mbàkke radiyallahu taala anhu ngir bis boobu saa yu mu woote ko ànd ko mbokk yi ànd ko taalibe yi mu nekk bis boo xam ne dañ ci ñaanal sunu jàmbaar jooju ak di ko ci di ko ci fàttaliku ngir mën a jariñ ci ak dundam gu barkeel googee moo tax saa yu agsee sëriñ bi joxaat ndigal sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne mooy kàddoom magal giit liggéey bi mu jiital ko ci mu woote ko woo ci mbokk yëpp woo ci taalib yëpp ngir ñu ànd ko defe ko noonu nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane woon ginnaaw boo xam ne sëriñ Abdou Samad woote woote woon na ko te taalib yi mbokk yi mbokk mbokk jullit ñëpp wuy sëriñ bi wuy bu rafet wuy bu yaatu lool boo xam ne sax kawe na njortu ginnaaw boo xamee ne màggal nañ ba noppi xam ngeen ne waxtaan yi ñuy def ci cérémonie mooy waxtu woo day xat ba kàddu yi yawar ak jotal ci ay cant ak ngërëm yëpp duñ ko ci mën a jàllale moo tax si ñu joxe ndigal suñu le bi subee sa ñu dajawaat daja ak ñi nga xam ne ñoo si ñoo si liggéey bi muy comité d'organisation bi nga xam ne liggéey bi lépp seen loxo la ko sëñ tegoon ñu ànd ko xool liggéey bi saytu ko waaye nag daje ak taskati xibaar yi muy waa presse bi ngir mën a jot nag kàddu cant ak ngërëm yoo xam ne nag day matale ci mbokk yëpp. moo tax kon ci ndigalu sëriñ si Amadou Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi dama ko waxee léegi ci kàddu sëriñ Abdou Samad sëñ baa ngi nuyu mbokk julli yëpp di nuyu mbokk taalib yëpp. di leen ndokkeelaat bu baax ci weer wi ñu nekk muy weeru koor di weeru barkeel di weeru juriñ ñëpp waaye di rewe di weeru tali bi yëpp ndax ni ko sëriñ bi fànkoon waaye di weeru nag njabootu sëriñ soxay bu ngir li ñu ci yàlla baaxe sëriñ soxay bu mu génn mu feeñ ci jamono waaye wuy ci borom jamono kon we suñu weer nee nag gannaaw boo xam ne ndokkeel na ñëpp ñu ngi ñu siyaare ñëpp mu ngi commencé ay nuyoom nag ak siyaaram ak cantam ak ngërëmam di ci jiital ci Cheikh mun Mountakha mi nga xam ne moo fa nekkal Cheikh Khadim ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéene yi mu am ak sumb yi mu sumb ak naal yi mu am yëpp ci liggéey Cheikh Khadim te lépp di njariñ julli ñëpp suñu moom wéral ko kàttan ko ba lépp mu àgg mu àggale ko fa bëgg a te ànd ko moom ci lépp sëriñ baa sant bu baax a baax xam nga ne kër gi ba mu ba mu tëggagul jotaayu Seexul Xadim bii lépp lu ma sa xew ci kër gi moo ko jiite mooy nekk ci bopp ba kon lépp loo xam ne xëy na xew na fit ak jotam moo ko mayut ak yan bi waaye kon du ci yebal kenn waaye li muy xat-xat teewut bis bi bis bu accès lépp ci ay teraanga def na ko ba mu sëkk ba ñu àgg ci bis bi it mu yebal fi ki nga xam ne moo yor kàddoom di Cheikh Mamadou si Mbacké moom Cheikh Abdou Khadir mu ñëw teewal ko fi. teel fee ñëw lool ànd ak sëriñ bi ba dem ci cérémonie ba ba mu jeex lépp mu teew ko yëkkati fi kàddu yu rafet lool kon Cheikh Amadou Mountakha suñu baa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaan bu baax a baax ya màggale mboolem mi di ak naal yi di sant yi mboolem mbokk yi mbokk Cheikh Khadim yëpp ku ne xam ne màggal gi daana yaatu mbokk yi daan daanañ daanañ ci teew waaye ren moom dafa mel ne dafa gën a yokk dafa mel ne dafa gën a yaatu mboolem kër Cheikh Khadim kenn desul moo xam ci njaboot njabootam gu góor gi la wala njaboot gu jigéen kër gu ci ne rek ka nekk ka nekk ci bopp kër gi bu fu ñëwul yebal na rakkam mu teewal ko fi ànd ko sëriñ bi ànd àndin mu rafet àndin àndin mat sëkk kon ñi bokk seexat ñëpp sëñ bi mi leen sant mu ngi leen di gërëm di rafetlu seen taxawaay di ñaan suñu boom boo leen dimbali boo leen kattanal ba kenn ku ne ci ñoom la mu la mu la mu la mu sumb ak la mu mébét ca fam nekk dafa léegal dafa léegal Seex Xaadim suñu boom suñu boom ko ba àggale ko fa kaw ñu fa kaw njortam di sant mbokk yëpp bàyyiwuñ kenn mooy ñi mboolem ñi bokkal maam bay bàyyiwuñ kenn mbokki mbàkk yépp mbokk yi musoo yëpp amul kenn ko xam ne rek wuute nga bi wuute wuute nga bi kon nag sëñ bi sant na leen baax ci ànd gi ñu ànd ak bi ak ak jàppale gi ñu jàppale di ñaan suñu boom defal leen ci lu kawe njor waaye di sant it mboolem seex seex seex xadim yëpp xam ngeen ne yaatu na lool waaye kenn ku ne ci ñoom am na ko la am na ko la fi teewal seen jëfit jiit jiitu na fi màggal gi teewul màggal gi ñoom màggal gi ñëpp teew nañ fa wala boog teewal teewal nañ leen fi kon mboolem seex seex seex Xaadim yëpp sëriñ baa ngi leen sant mi ngi leen di gërëm bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn gannaaw gannaaw loolu it mu mi ngi mi ngi beral cant nag ak gërëm ñi nga xam ne bés bi ñoo ci gën a ñoo ci gën a ràññeeku ñoo ci ëpp solo ndax day ñoo koy ñoo ñoo koy ñoo koy tëj ñoo koy tëj muy nag daare daare alxuraan yi daare kaamil yi xam ngeen ne suñu soxna bi moom lépp mu alxuraan la kon bis bis bi nga koy defal alxuraan moo ci war njëkk moo ci war a mujj dafa mel nag loolu cër bi nga xam ne yàlla cëral na ko cëral na cëral na ko ci alxuraan boole ko boole ko ak alxuraan wenn weer bu wàcc boole ko ak alxuraan benn mission muy defar doomu aadama cër bi ku ci yàlla defal waaye Seexu Xaadim cëral ko ci ndax da ko moo ko dénkoon alxuraan day mel ne cër boobu ñëpp nangu lañ ko ko rawatina nag daara alxuraan yi bu màggal gi accès day mel ne kenn ci ñoom du xaar sax ñu yëgal la ko danañ ci wóone pas-pas ak ak yéene joo xam sax dafay kawe njor li li fiy daje ci ay lim ci ay kaamil yu njàng jóge ci daara yoo xam ne kenn yëgul leen ko lim lim yu yëgg la daanaka li fi dajeegoon ci ay lim ci li ma la ma ci xamagoon rek ëpp ëpp na fukki junni ëpp na fukki ëpp na fukki junni kaamil waaw yoo xam ne ñu ko jàng ñëpp dañ ko jàng li wàcci laay seen duwuñ ci dara te ñi ëpp sax kenn déggul leen ko loolu day mel ne ab cëram moom ci alxuraan julli julli yëpp nangoo lañ ko kon nag sëñ bi amul amul lu gën a lu gën a kawe cant amul amul lu gën a kawe ngërëm mi leen sant mi ngi leen gërëm di ñaan sunu borom seen liggéey barkeel boobu nga xam ne mooy liggéey bi gën ci liggéey mu jàng mu jàngal jàngal alxuraan ak di ko jàng yàlla na boom defal leen ci tawféex defal leen ci taysiir ba lañ ci séentu di ko jubut muy ngërëm suñu boom di ngërëm ma Seexul Xadim ñoo ñu day ceeg moom sant na daari alxuraan yëpp sant na daari sant na daari kaamil yëpp waaye di sant sant nag ahlu xasida muy kuréelu xasida yi ñoom ku ne xam na ne xasida moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy lépp mooy lépp sëriñ bi ba alxuraan jolle amul lu amul lu gën a kawe xasida ci ñun kuréelu xasida yëpp kenn desul commencé ko yu daayira Fulku Masoon bi nga xam ne ba sëriñ bi commencé màggal gi lañ ko ànd ak moom ba waxtu wi màggal gi accès dañ fa lañ yandu ak ànd ko nag mboolem yeneen kuréel kuréelu xasida yi nga xam ne danañ ñëw ci bis bi di di ci ànd ñoom di leen jàppale suñ suñ baa leen sant di leen gërëm cant googu nag sax mu ko jaarale ci rakkam yi nga xam ne ku ne xam na ne kenn mënut tudd xasida te tuddoo ko muy Cheikh Ahmadou sunu Mbàkke ñaan sunu boom dëggal ko sant googu sëriñ bi sant ahlu xasida yi mi ngi ko jaare ci moom mi nga xam ne mooy seen jëwriñ waaye di jëwriñ ci kër gi sant sëriñ bi sant nañu baax a baax lim moom it lim yi fi daje ci ci xasida mu kenn mënu ko kenn mënu kenn mënu kenn mënu su ko takk ci xasida yu mag yi ci ndaw yi euh, façon façon xasida gu ne rek euh, jàng nañ ko ngir ngir rek euh, seen yéene ci sëriñ Souhaïbou kon nag si ñoom it suñu bàyyi leen sant bu baax di leen gërëm bayu bayu bayut kenn di sant mbokki taalib yi mbir yëpp bayu kenn ndax suñu son bi moom ku xam na ne amutoon amutoon amutoon sax ak ak amutoon sax loolu ñuy wax kër daanaka moom wala ay taalib yi moom moom moom ku yaakaar sëñ Tuubaa rek moom moom dalaa booleen ci boppam def la ak njabootam xam na ne li li ay li ay wóllëre li ay wóllëre mënoon mënoon am ci moom sax taalibe yi su ko jëblu day mel ne sax ñu ko am ci moom kon moom taalibe yëpp la jabate woon njariñu taalibe yëpp la woon it waaye loolu day mel ne taalibe yi xam nañ ko baax baax bisam moom day mel ne kenn kenn kenn kenn xaaru ci dara taalibe yi dañ ci woon a dañ ci woon a xer ak pas-pas ak yéene joo xam ne kawe na jort moom moo xam fii ci Touba wala ci biir réew wala bitim réew kon nag fépp ab taalibe mu nekk yaakaar Sëñ Tuubaa te doon dundil bis bi ak di ànd ko ñoom sëriñ baa lay sant mi leen di gërëm di ñaan lu ci lu ci ab bi def rek mu dëppoog euh, ngërëmu sëñ bi eh, di ñaanal ñu yàggoo yàggoo ànd sëñ Tuubaa sant nag daayira yi bay bàyyiwuñ benn daayira moo xam sëñ Tuubaa li bàyyiwuñ benn euh, rawatina nag daayira Hizbut bi nga xam ne ñoom seen taxawaay ji màggal tax taxawaay bu rafet la euh, teel lañ fee yebal yónnee ay teraanga yu bëree bari bu bis bi ñëwee it euh, sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne moom moo jiite daayira bi ñëw na fi ànd fekk mbooloo mu bare bari mbooloo mbooloo mu bari lool ànd fekk ak kuréel yoo xam ne fii lañ nekk di wéttu sëriñ bi di ko jàngal euh, ba bis bi jeex kon mm, daayira yëpp lañ sant daayira sëriñ Tuubaa yëpp ndax bañ yëpp yëpp a ci jàpp ñoom sëriñ bi wax na ne na ngeen bel cant bel ak ngërëm seen taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci bis bi ànd ko ànd ànd ceeg moom wétu wéttale ko ci kon ñëpp sëriñ baa leen sant mi ngi leen gërëm di ñaan seen jëf yëpp rek dëppoo ngërëmu Sëñ Tuubaa di sant nag euh, daayira yi nga xam ne ñoo aju ñoo aju kër gi yëpp bàyyi bàyyiwuñ kenn muy daayira muy fédération Sëñ Sam bi yëpp commencé ko yi nekk ci Touba yi nekk ci biir réew mi ba ci nekk bitim réew ñoom ñi nga xam ne màggal gi ku ci ku ci jëf ñoom lay jàppale euh, ku fi ñëwee ñoom la fi ñëwee euh, la lu sëñ bi def it moom ñoo koy ànd ñoo koy ànd ci ci njëlbeen ñoo ñoo koy ànd ci mujj ñoo koy ànd ci biir ñoo koy ànd ci biti ba ba sëriñ bi wootee màggal gi kenn nëppaluwul daayira bi yëpp daayira yëpp boole lañ seen alal boole lañ seen doole lépp jëmbat ko ci bis bi ba la bi bis bi na mu ko bëggoon mu am ko sax ba am ko nu kaw njor kon daayira kër gi yëpp fédération Sëriñ Souhaïbou bi yëpp ni ma wax waxee yi nekk ci ak ak yi bi nga jëf jaar la ko sa jëwriñ ngir màggal gi agsi na ci moom tey lépp defal leen ko ci bis Sëriñ Souhaïbou bi kon mi ngi sëñ baa leen sant mi leen gërëm seen taxawaay bu baax a baax di sant rek bu baax a baax euh, euh, maire maire maire maire dëkk bi muy Abdou Lahad Ka euh, di sant mboolem mm, conseil yi ko jàppale yëpp xam ngeen ne bi bis bi ñëwee sëñ bi sëriñ bi moom la ko njëkk a yëgal ndax moom moo mooy moo jiitu ci autorité yi moo tax màggal bu agsee ba lañ ko yëgal sax sous-préfet moom moo leen ko njëkk yëgal mm, bi ko biñ ko yëgalee sëñ bi soo ko joxe ndigal ñu yëgal ko superfet préfet yëgal ko préfet ba ci gouverneur de la ba ci ministre de l'intérieur ba ci président de la république kenn ku kenn ku ci ne sëñ bi jox na ndigal ñu bindal leetar yëgal la màggal gi ngir ànd ànd ko ñoom ndax taxawaay yi nga xam ne baaxoo nañ ko ci taxawee tawar ko tawar ko ci taxawee lu ci nañ ñu waxtaanee ko ak ñoom ànd ko ñoom kon nag sëriñ baa ngi leen sant leen gërëm xam ngeen ne màggal gi bu agsee dana am benn CRD bu ñu def ci ci Jurbel nga xam ne gouverneur de la de la région moo koy woote ànd koog euh, chef de service yi nekk ci yëpp nañ ko baaxoo defee defe nañ ko ren ji ginnaaw bu mu jotee lettre sëriñ bi moom gouverneur de la région woote na benn CRD ci Jurbel euh, boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo liggéey màggal gi muy comité d'organisation bi dem nañ fa teewe ko ànd ko ak ñoom euh, wax waxtaanee fa lépp loo xam ne soxla màggal gi te muy loo xam ne état moo ko war a taxawee ci bis yu mel noonu euh, nga xam ne euh, fépp mbooloo daje dafa loolu loolu taxawaayu taxawaayu état la dafa daf caa war a war a feeñ ci ci ci ci ci domaine yëpp. nañ ko dañ bañ ko defee lépp loo xam ne waxtaanee woon nañ ko fa ci ay bëgg-bëgg ci ay ci ay ci ay yitte yoo xam ne day dellu ci nit ñi mel na ne. lañ lañ fa lañ lañ sàkk woon ci ci ci ñoom euh, bu fekkee defuñu lépp it may la ci la ci la ci ëpp def nañ ko euh, kon sëñ baa ngi sant autorité yëpp waaye di ko di ko commencé ci ci ne ma ko wax léegi nag ci président ci ci maire maire ci maire ci maire Abdou Lahad Ka moom mi nga xam ne euh, bis bii taxawaay bu ràññeeku la ci am xañ na taxawaay bu ràññeeku la ci am boo xam ne Euh, day mel ne euh, ñaari ñaari taxawaay la ndax benn taxawaay bi day jëwriñ ci kër gi ndax kon xam ne ne kër Cheikh Abdou ak ak kër Cheikh Soumé benn la euh, kon fee mu nekk dafa nekk dafa nekkal ci suñ siidi mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Abdou Lahad waaye dafa nekkal suñu Cheikh ak njëbal suñu Cheikh yëpp taxawaay boobu it xam na ko bu baax a baax bis bii lépp lu ci lu ci war war ci maire bi ak sax li leen ci warul def na def na ko ba mu sëkk yeneen sa service yi nga xam ne sax dañoo war a intervenir ci ci ci màggal gi léeg-léeg sax ku ci am jafe-jafe moom jafe-jafe boobu moom moo ko jël ko ci yu bëree bëri euh, loolu nag xañ te bu yemoon ca la la war maire rek mën am yooyu du ci àgg waaye xam gi mu xam li mu doon ci kër gi xam gi mu xam li li li li bi doon ci dëkk bi tax tax na du ci du ci ñëpp dara taxawaay bopp mi ci yeneen fànn yëpp dara décision kon suñu Abdou Lahad Ka moom suñu baa ngi koy sant gërëm di ko ñaanal sunu boom dëgëral ko ba liggéey bii nga xam ne sëriñ bi teg na ko ci loxoom ngir yaakaar yaakaar ju yàlla bu mu tas yàlla sunu boom sàmm su dëgëral ko kattanal ko ba fépp fu mu bëgg yóbbu liggéey bi fépp fu mu bëgg yóbbu dëkk bi mu àggale ko fa ñu dara ji sëñ Tuubaa di sant euh, le sous-préfet de euh, arrondissement ak préfet département ñoo ko wax ak gouverneur de la région ñoom ñëpp ñi leen sant ndax euh, taxawaay yi ñu ci war a yëpp taxaw taxawe nañ ko lu ci lu ci manqué rek Euh, loolu xëy na dañu xam ne rek lu mat lu mat moom yàlla yàlla rek moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko man waaye feeñal feeñal feeñal seen si feeñal nañ seen yéene ànd nañu bis bi ci njëlbeen gi mujj ba ci mujj gi euh, fu jafe-jafe amee buñ ko yéegee dañ ci taxaw seen këm kattan euh, kon nag suñ bàyyi leen sant leen gërëm cant googu nag mi ngi ko yéegal ba ci ministère de mi nga xam ne moo leen jabar ñoom ñëpp waaye nag di ko yéegal ci ba ci ki nga xam ne mooy kilifa réew mi di président Macky Sall moom it sëñ baa sant bu baax a baax di ko gërëm ndax lépp lu lépp lu ko waroon ci bis bi euh, euh, war ci président def na ko ba mat sëkk bis bi bis accès it yebal na fi délégation bu mat sëkk ci njiital ministre Omar Gueye ak ay ak ay ministre conseil ak ay ay ay ay ay ay directeur ay ay directeur euh, muy délégation bi yaatu boo xam ne limoon nañ lim nañ ko ci ci ci ci cérémonie bi ñëpp dégg nañ ko kon nag sëriñ baa ngi sant di ko gërëm ndax bis bi moom mooy bis bi gën a màgg ci ci moom kon nag bis boo xam ne képp ku ci jàpp lu mu tuutul rek sëriñ bi amee na cant amee na gërëm rawatina moom mi nga xam ne moom moo moo nekk bopp réew mi tañ euh, tañ xam bu baax it nag fi mu fi mu teg sëriñ bi euh, kon nag sëriñ baa ngi ko sant di ko gërëm di ko ñaanal defal ko tawfeex ci ba yan bi nga xam ne yan nañ ko ci réew mi yéen a jëm ci am lépp mu àggale ko àggale tàggale ko ci sagoom te lépp am ci jàmm ci daraja Sëñ Tuubaa di sant mboolem membre gouvernement bi yëpp ñëpp ñëpp kenn des ñëpp te ñu ci bari teew nañ fi ndax sëriñ bi euh, ba bari na ci ay wëllëre bari na ci ay xarit te ñoom ñëpp teew nañ fi ngir ngir ngir ngir ngir ngir lañ doon ci ci réew mi waaye teew nañ fi ngir lañ sax ak moom kon kuñ ci tur kuñ ci turuti da nga xam ne sëriñ bi sa taxawaay sa teewaay yëg na ko te rëy na ci moom mi ngi leen ñoom ñëpp mi ngi leen sant mi ngi leen gërëm di leen ñaan bu baax a baax di sant nag euh, comité organisation bi nga xam ne ñoom na sëñ bi tegoon liggéey bi seen loxo te sëñ ab Samad moom section bi nekk ci bopp ba nga xam ne mooy mooy mooy njiital comité bi nekk président comité d' organisation bi euh, ñu ànd ak moom di ko di coordonné liggéey bi ànd ko nag jëwriñu kër gi ñi fi ñëpp ñu ci bari dañoo jiite ay commission euh, ànd ànd ak mbooloo ñoo ñëpp sëñ baa leen sant leen gërëm ndax màggal gi bañ ko wootee ba léegi kenn noppaliwul euh, tëj nañ seen kër ñii tëj nañ seen liggéeyukaay seen yitte yëpp ñu ko ci bis bi ngir bis bi jàkk ngir ngir bis mel na ko sëñ bëgg ah yaakaar naa ne képp ku ñëw ci bis bi wala nga ko doon doon doonte ñëwoo ci xam nga ne bis bi àgg na fa lépp nag seen taxawaay dara jiitu ko ci ndax euh, nëpp luñ benn yoon lépp luñ mën def nañ ko ci euh, dëgg la ñooy borom bis bi ndax ñooy ñooy ñooy jëwriñu kër gi waaye loolu it nag feeñal nañ ko baax baax kon suñ bàyyi leen sant leen gërëm coono nañ ci sonn yëpp nag ñu xam ne liggéey suñ jowaa moom la la ci si wax rek daa wax ne liggéey suñ jowaa moom duma ci du ma ci yërëm kenn ndax dama damaa xam pay ga euh, ñu ne lool la ñuy wax lool loolu la ñuy wax ñu ngi seqal ñëpp xam nañ ne coono yu bare bare mi ngi ci waaye nag suñ jowaa moom képp ku liggéey bu fay ga ñëwee nga fàtte coono ko euh, daana wax ne liggéey suñ jowaa moom kum tax ñu kum tax raw la saa yu jóg saa yu dabe kon nag liggéey sëñ Tuubaa ba ba ba tardé moom doom mukk kon nag nañu xam ne coono ñu gisoon moo xam lu néew la moo lu bari la lépp nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko def rek ngir sëñ Tuubaa bi ko defee euh, rëcc du ci am euh, te xam naa ne loolu moo nekk ci yéen kon nag mboolem ku jàppoon rek ku sori ku jege la ku fi teew ak na nga xam ne seen seen seen liggéey moom sëñ bi sant ko gërëm na ko taalibe bi yëpp sant nañ ko gërëm nañ ko ndax ni ma ko wax rek màggal ñëpp xam ñu euh, tax taxawaay taxawaay dëgg-dëgg moo tax mel ni mu mel kon sëñ baa leen sant di leen bu baax a baax di leen ñaanal suñu boom defal leen tawféex ba kenn ku ne la muy sàkku li ma dégg li ngërëm sëñ bi suñu boom defal kooku ñu leen sant bu baax di gërëm bu baax a baax di jeexal nag sant presse bi nga xam ne ñoo fi teew tey jii te xam ngeen ne ñoom seen seen liggéey dafa am solo lool ci màggal gi euh, màggal gi nga xam ne ren. communication bi yaatu na lool te nag seen seen seen taxawaay la seen seen liggéey la ndax euh, li ñuy fiy def lu mu baax baax li muy baax baax li muy rafet rafet bu bu toon seen taxawaay amaana du àgg si fi mu àgg euh, diir bi ñu ko gàtt di jàpp bi màggal gàtt na lool xam ngeen ne màggal ñaari at ngeen defee defee su ko ngir sàmmante ak seex Cheikh Maodo Mountakha euh, bi sëriñ bi jot ndigal daanaka koor gi li ci des matul weer daanaka ta diggante yi ñu nekk di def avant premier rek boo ko ba muy sotti daanaka la ci des la ci des ma tudd 15 jours waaye li muy gàtt gàtt seen taxawaay muy taxawaay presse yëpp euh, tax na mel na ne lu ñu waajal ay lu yàgg la ndax euh, biñ defee avant première bi ñoom ñëpp def nañ ci yitte ci jàllale ko ci yaatal ko yaat yaatal ma kaw njort ba waxtu wane ni ñaa ngi lay woo daan màggal dëgg naa ko seetaan naa ko loolu nag kon day mel ne seen taxawaay ràññee ko ràññee ko ci lool <clears throat> émission yu bëree bëri am na ci ay palaato yoo xam ne yëpp xañ lu ci lu ca manqué ci ñun la waaye euh, ubbil nañu seen bunt ci fànn yëpp moo xam ci rajo yi la moo xam ci télévision la moo xam ci réseaux sociaux ñëpp moo xam ci internet yi bàyyiwuñ kenn mm, kenn ku ne def nga ci la nga mënul ak la nga mënul feeñ feeñal sa yéene te loolu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ràññee nañ ko euh, kon nag te naka jekk noonu lañ ko baaxee ànd ak ñun kon presse yëpp. suñu <clears throat> baa leen sant mi leen gërëm di ñaan suñu boom barkeel seeni kër yooyu barkeel seen liggéey ndaw yi ñu fi yebal ñu bari leen cant bari bari leen ay ngërëm te di ko seetal seen kilifa ndax <clears throat> bu ñëwoon rek yam seen liggéey man naa am mën naa mën nañoo bañ a àgg fenn fi waaye ku ci ñëw rek danga nga da nga da def lañu sant waaye da nga ci yokk loo xam ne sa yéen yi bopp la <clears throat> ak sa cofeel ci suñu sooy bu mm, ak nag loo seq waa kër gi ci ci kóolare loolu te loolu feeñee ci baax baax. ñoo ko àndoon si bis bañ ko wootee tey jii ñëpp ñëpp ñëpp seen liggéey jeex na ñu di ko àndal ko ñun kon suñ bàyyi leen sant bàyyiwuñ kenn du jar ñuy tudd kenn waaye suñ bàyyi leen sant gë sant ñëpp di ñëpp xanaa bu ñu tuddee RTS mi nga xam ne nag moom télé ñëpp la dana yóbbaale ñëpp ñoom cant cant cant cant gi ngi ko cant moom ci taxawaayam ci teewaayam yóbbaale cant presse yëpp kon nag ñu ñaan sunu boom ci daje sëñ Tuubaa lépp lu ci waay jëf lu mu tuuti ak lu mu kawe ak mu rëy rek yàlla na ko sëñ Tuubaa nangu te da defal ñu ci mm, pay pay goo xam ne dana kawe njor tey a ëllëg te ki taxoon ñuy def bés bi liggéeyal na sëñ Tuubaa liggéey liggéey boo xam ne jàpp nañ ne ah mm, sëñ Tuubaa gërëm na ko ngërëm loo xam ne yaakaar nañ ne képp ku sonn ci bisam mën nga caa man nga caa mën nga caa dajee ngërëm sëñ Tuubaa kon nag yàlla nañ ci yàlla nañ ci làq ngërëmam te yàgg ko ànd te fekk ko ay at yu bëree bëri ci daraja sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu